yéen suñu mbokk internet yi mën ngeen a abone ci suñu chaîne YouTube groupe Bawol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te wóor fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee. nit ki balaa koy xam ne nga dem ba këram wala nga seq ak moom ñun ñi nga xam ne ni man bi may fàttaliku ñoo am dañu dem France wax dëgg fa yàlla mu nekkoon foog ko xam ne nii def na fa loo xam ne nii bàyyil nañu wax dëgg fa yàlla lu ñuy fàttaliku. nekkoon ku yaatu ku baax ku yiwu Golbert bëggam ndar rek mooy woon nit mu doon euh, musul wax leen kenn te neew ko del jëfe lu baax dund lu baax dundam yëpp ñu ngi ko teg ci jub ak dëgg kon tey bu génnee àdduna njukkal bi yëpp mooy Sénégal gi yëpp te ko war a ñaanal ñaanal njaboot gi fi bàyyi euh, man saa yu musaane dem dafa daan invité ne ma tey fii ngay añee ma toog ñuy waxtaan ci ndar waaye du waxtaanu ndar rek moo ko intéressé woon moom Sénégal ci boppam ci xolam la ko defoon kon koo xam ne nii daan nañu yedd ci lu baax jëfee lu baax yiw boole ci te bëgg boppam Colbert ci ni mu daan téye rek man dama yaakaar ni sax ne bi ñu duggee mooy ni diine wàcce ci àddina di liggéey lépp ci nit defe naa ni noonu la ko daan defee ci à travers les écrans pour yàdd nit ñi yee leen parce que diine loolu moo tax am na ñoo xam ne sax dañuy toog daan ne wàccuwaay boobu théâtre bi def moom la diine gi bu wàccee ci àddina du dara lu dul rek soppi ji ko doomu aadama kon nag comme moom mi ngi ci béy waaram daanaka benn la mën nañ ko xalaat noonu ñaanal ko it fa mu jëm yàlla na ko gënal fuuf fii mu jóge yéen suñu mbokk internet mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Baol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te wóor fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee